Thiès moo dalal prytanée militaire ngir wéyal seeni ay activité ci lu jëm ci màggal seen téeméeri atu école ba tax nañu amaloon ab conférence publique ngir waxtaanee lu jëm ci wàllu dem dikk bi te ñu duppee ko transport de masse rawatina saxaar si ku wax euh, euh, saxaar Thiès ngay xalaat Thiès c'est la capitale du rail mënuñu def conférence sur euh, les rails Euh, sur les modes de transport de masse sur le rail sans bañ ko def à Thiès et puis dans le cadre du centenaire on avait ici aussi décidé de décentraliser nos activités boobu la conférence doon na occasion ngir ñu waxtaanee retardu Afrique ci lu jëm ci réseau ferroviaire par rapport ak yeneen continent yi mbiru saxaar moom foo dem ci àddina bi da ngay gis ne eh, lu fa am solo la ñu ci bari sax buñ tukkee génn Afrique rek doo xam sax fan la garage oto nekk lu ci bari otoraay ngay jël te lii wane loolu mooy dafa am euh, ay jàngat yu ñu def yu wane ne waaye boo duggee Afrique loolu mu ngi ci ñaari kilomètre dong ak juróom ci junne kilomètre carré xam nga loolu day wane ne Afrique moom tardé na. ba tax na tey mënuñoo wax sukkali Sénégal te dugaluñu chemin de fer ci boobule mbir. li fi am mooy da ngay gis ay fanweeri camion yu rang ku ci ne bëgg a jël benn conteneur nit ñu bari daje fa benn otoraay dong mën na koo jël kon xam ngeen ne otoraay moom lu ci nit def rek jar na ko. ñu taxawal ko ci atum 1923 Prytanée militaire bu saint wi doon na école bu mucc ayib ci wàllu xam-xam waaye tamit ci jaxasoo ci diggante africain yi. ba tax na boobu la école formé na ay cadre yu bari civil waaye tamit militaire màggal téeméeri atu école bi tàmbale nañ ko. ci fukki fan ak benn ci weeru février dinañ ko wéyal ba weeru décembre